sunu yaay yi sunu yaay lañu la jàppale ak sunu sœur maanaam ñu amul seen yaay te ñu génn àdduna yal na leen yàlla yërëm te xaaral na àjjana ñun amuñu lenn lu dul sunu yaay buñ sañoon nañu ne sunu yaay fekk fekkee sunu njëriñ ba leen jàppale tey nag dafa mbégteel la sunu xol dafa sedd ndax nit amul lenn lu dul yaayam tey bu ñu demee ba mën a taxaw fii sunu yaay yaay ñu jàppale bañ taxaw fii tey